salamu barke borom Tuubaa mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk réew meeg bitim réew mboolem ñuy topp seen tele bu mag bi Desus TV ñoo ngi leen di waxati kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu oustaz maa ngi fay am nuyoo te di la nuyu tey ñaan jàmm ak ci télé bii ñu defee waxtaan bi di nuyu directeur bi ak soxnaam ak ñu koy jàppale ci liggéey bi ñëpp di la ndokkeel nag ci weeru tedd wi di ci ndokkeel ummal islam bi yëpp di santaat sunu borom ci ñëwaat ci jotaay bi ngir waxtaane diine ak li ci aju tarkal alors alors alors oustaz li ñu war a xam mooy lan moom màndaxle weeru koor ak alxuraanul karim waaw ah, jërëjëf oustaz waxati nga lu am solo ndax weer wi day weer wu tedd mhm. weeru koor ak alxuraan nag ñoom ñaar suñu borom moo leen lëkkale mhm. yàlla mi nga xam ne moo def weeru koor mu doon lim doon mhm. wàcc alxuraan yi def ko mu doon lim doon du nit ñi ñoo leen lëkkale waaye yàlla suñu borom moom moo leen lëkkale ndax oustaz xam nga ni yàlla wane na ni màggaayub alxuraan moo lay wan rëyaayub weeru koor waaye réyaayu weeru koor it moo lay wan màggaayub alxuraan. Hmm. gis nga ñoom ñaar ku ci nekk benn projecteur nga bay wane sa morom. moo tax saa su nekk su mbërëm di leen di lëkkale. Hmm. ba demee ci alxuraan xanaa xamoo lim. jëkk def sax mooy weeru koor màggaay bi réyaay bi tax na la tudd bayaanan moom weer wi. Hmm? moom donc boo xoolee weer yi fukki weer ñaar lan. lu dul weeru koor su mbërëm dana ko tudd waaye ci bëmbëstal. te ko comme bàyyi rek mu jàll gis nga. inna hiddata shuhuri hindallah hisna hasara saharan hisna hasara saharan fikit yawma khalaqa samawati wal arda minha arbahatun hurumun salika dinul qayyimu fala taslimu fihinna anfusakum daanne waqaatilul mushrikina kaafatan kama yuqaatilunakum kaafatan waxlamu anna allaha ma'al muttaqin foofu suñu borom wane na ni lii mu weeri fukki weer lañ ak ñaar waaye tudd ci benn nag ne bii nii la tudd wala bii lii la doon dafa bomba rek ne fukki wera ñaar lañ daane ci biir fukki weer ñaar it amna ci ñent ñeenti yu yun war maal banaam xam-xam ne ñu koy génne après nan bi la ak bi ak bi mhm. waye alxuraan ñew tax ne wii weer la tuddu ko tuddu ko léeg nga dégg mu ni weeri aji dana alhajju ashurun mahlumat ay weer la ay yun xam la Faman farada fihi al hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidar fi l hajji mhm. wa ma tafala min khayrin yaxlamullaa allah mhm. waye batay néew la weer la ak wer wi ak wer wi waye borom xam-xam ñoy di yan weer mooy asxurul maxlumaat mhm. a ngi dégg asxurul sax suñu borom dana ko wax waaye du ko détaillé gis nga fa isan salaxal asxurul xurum faqtulul musrikin waaw du ko mbëbësal <laughs> du ko mbëbësal mhm. ay suba jett moom waqul suufum léeg-léeg mu ne fasiihu fil ardi arbaxata asxurin waxala mu àndakum xeer mu gisillaa waaw tuddul wenn weer tuddul ba mu des wenn rek mooy weer yu nu nekk mu weeru koor ramadan sahru ramadana moom dong nga ko ci am nag alxuraan yëpp ba mu jeex menn weeru koor rek la yàlla tudd turam bayaanan ngir wane màggaayam sahru ramadaana tudd weer wam ne tudd weer wam ne waaye foofu nag lëkkaloo gi day ñëwaat mu ne da nga ko waaw lu tax nga ber ko weer yëpp bu ci nekk nga junj ko rek def ay ay ay isaaraat ñu di ko leeral moom nag nga tudd ko bayaanan bu mel ne ci biir laaj bi da naan lu tax mun li waral mooy allasi unsila fiihi alquran waaw looloo ko jox daraja looloo ko jox daraja hudan linnaasi wa bayyinaati min alhuda wal furqaan li ko jox daraja mooy moom weeru koor ci laa wàcce alquran mhm. kon wàcce gi nu wàcce ci moom alquran nga ngi dégg te ko ko ca wàccee di yàlla ndax machmul mahloom la rek nga ngi dégg ndax fi xali waaye xam nga ne faaxil ja mooy yàlla mhm. ci moom lanu wàcce alquran wàcce gin wàcce ci moom alxuraan nag te alxuraan gën a màgg lu dul moom ndax innahu la quraanun karim fii kitaabin maknuun la yamasahu illa al mutaharuun tanziilu min rabbil alamin ca waaqiaat ca waaqiaat hmm. léegi nag rëyaayub alxuraan moom i weer wan ko jagleel nag mu war caa wàcc weer woowe day wane waale ak rëyam moo tax ma la ñaar dañuy wanante moo tax mu ni weeru koor ci laa wàcc alxuraan léeg-léeg sax mu junj ci gan guddi la ko wàcc dégg nga inna ansalnaahu fii laylatin mubaaraka ko hmm. inna kunna munsiriin فيها يفرق كل امر حكيم امرا من هندنا انا كنا مرسلين دم بفل نك نعم مغن كو اغال انا انسلناه في ليله القدر وما ادريك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف سنه تلو ما نخيو ليله المباركه اك ليله القدر منك بير رمضان اك لو ما نخيو على كل حال على كل حال كون لولي لب لمي واني موي رياي وير كور موتا موم دوغ لن تود بيانان امول بنين وير وكو ام تي بير القران اك لوم تيد تي رك لوم ماغ ماغ موي بن ba nak bim ko tuddee it gis nga ni xarina bi da koo ak alquran kon gis nga hmm. seen lëkkaloo yalla moko def motax sax gis nga eh, borom xam-xam gisaat nan ni hmm. ak alquran ak ko da andi wat ñenn ñi ne sax ñoo bokk mission manam mission bi alquran am ci nit ñi hmm. même mission bu ni mel la weeru ko am ci nit ñi ñu ni a ah, lutax ñu ni alquran mission bi am ci nit ñi moy tàqale leen ak bakkar te moy lëndëm lëndëm yi tabal leen ci leer ndax bak asul muslimatun yawmal qiyamah te lolu yalla moko définiral ca bopp Ibrahima. Hmm? moo ne yonent bi kitaabun ansalnaahu ilayka li tuxrija naasa min assulumaati ila nuur ila nuur hmm. bi isni rabbihim moo gis nga fële ca xadis sax huwa alladi yunazilu ala abdihi ayatin bayinaat hmm. waaye li yuxrijakum min assulumaati ila nuur wa inna allaha bikum la rauf rahim maa wàcc ci yow téere bi mu mel ni dañ ne ko lu tax nga wàcce ko ci moom laamuk taxlil la ci grammaire laamuk illa li moo tax day na sab li tuxrija naasa mina sulumaati ila nuur dara tuxul ma jox la téere bi nag lu dul nga génneel ma nit ñi ci lëndëm lëndëm yi yi nga xam ne bàkkaar a ko sabab ak yëf-yëfaan yóbbul ma leen ci sama leer gi nga xam ne mooy siraatal mustaqim ñu man a am réussir tey ak ëllëg mhm. xam nga loolu rek mooy mission alxuraan ñu ne mission boobu nag ak mission ramadan ñoo bokk ngir seenug lëkkaloo ñu ne lu tax ñu ne baatub ramadan mhm. li muy firi mooy luy lakk luy lakk bàkkaar xam nga ramadan mooy lu tàng jër si ab gël ab gël luy lakk xam nga baatub ramadan baat bi cosaan li dëgg mi ngi jóge ci arramadu mhm. ñu koy ñu koy tegee ramida yarmadu ramdan mhm. xam ne buñ koy jamhu dañ koy jamhu ramadanaat muy faxlaanaat mhm. manes na ko jamhu armada u comme afxala u yaa ngi ci wasnu bi maa ngi ci wasnu bi wala ñu jamhoo ko armidatun muy afxilatun waaye ramadaniin muy faxlaaniin kon baat bi cosaan li dëgg mooy arramadu fi mu taxawee cheikha bi ramadan siqatul mubalaxa la waaye maa laa yan sarif mooy du soppiku noonu lay tëddee noonu rek lay ak lu ko a jiitu boo ne woon bi bi tamit da nga naa bi sahri ramadana rek mhm. xam nga sahru ramadana boo ah, ko dañ ko dañ ko dañ ko mu daaf ci ci ci sahru bi ci baaw ci ndax baaw te atte mu daaf day kasra kasra ndax bi gi sax a tax waaye awalan waaye naga nga fa nga koy bàyyi moom ramadana rek nga sarif laa yan sarif day wane waa darajaam xam maa laa yan sarif mhm. mooy loo xam ne position bi mu taxaw ilaa Dakar yi lañ war waaye dakaar personnalité amul lu ko mën a toxal <laughs> waaw Dakar rek <laughs> Dakar rek lay doon mhm. gis nga baat bi sa day wane waat dooleem mhm. gis nga ne baat bi nag boo ko doon firi mhm. mooy mooy mooy luy lakk borom xam-xam ne mooy luy lakk bàkkaar gis nga ni ni ni ni xal di def matt lakk ko ba jeex ba doo gisati matt ba ñu ne weeru ko noonu lay lakke bàkkaar yi jaam ñi day jeex tàkk moo tax yunte bi daan wax naan man day ñeewuma ko dugg ci weeru koor ba jeexal ko te say bàkkaar jeexut waaw nee na kooku moom jaaxal na ko bu doon jaaxale moom yónent bi bokk na ca la koy jaaxal jullit bi dugg ci weeru koor ba jeex desee bàkkaar ndax ku dugg ci nga xoole ba dese bàkkaar bu mu lakkut mhm. nee na yow sa mbir waroon nga koo xool waaw dëgg de dégg day lakk rek kon boo xoolee alxuraan moom kon day tàqale nit ak bàkkaar muy lëndal ko ci leer ramadan i moom it di lakk say bàkkaar te ba lakkee bàkkaar yi da lay dugal ci leer mhm. ndax bu bàkkaar jeexee bu àndoo rek leer gi ñëw lëndëm gi ak leer gi moom kenn bu dem rek sa morom ñëw soo duggee ci néeg bi mu lëndëm booy taal contact bi lëndëm di dem mhm. mu daal di leer waaye boo fayaatee contact bi rek lëndëm ñëwaat mhm. kon ku mën a toxal lëndëm rek yaa mën a indi leer yow maa ngi dégg moo tax ramadan comme daa ñëw moom ngi lakk suñu bàkkaar yi kon kon automatiquement kon mina sulumaati ila nuuri rôle bi alxuraan am kon rôle boobu yi ramadan moom la amaat maa mhm. ngi dégg li gën a yéeme ci borom xam-xam yi sax xóotal nañ daan ne baatu ramadan sax am na ñu ne sax ci turu yàlla yi lañ ko boole ismun min ñene ne lu tax ñu waaw dañ ko bolé ki turu yàlla ndax dañ ni jëmmé lak bakkar ak jéggelé bakkar kèn du ko mënul ku yàlla kon loolu sifab yàlla la ismu yàlla la ci sifat yi la bok na alquran mu ne wa man yaxfiru sunuba illallah kese amul ku mëna jéggelé bakkar bàkkaar yàlla yàlla sa question la dóor kan ngeen jàpp ne man na jéggelé bakkar ku yàlla tu bi moy di amul yàlla do nga mëna jéggelé bakkar bàkkaar wa man yaxfiru sunuba illallah walam yusiru ala ma faalu ya'lamun ñu ne kon ku am mission bu mel noonu kon loolu sifa nga ci yàlla yaa ngi dégg ñenn ñi sax daan ni tuuru yonent bi la. ñu ne lu tax ko tuuru yonent waaw ñu ne parce que daa xeetoo ak almaahi. xam nga hmm. almaahi tuuru yonent bi la Muhammadul Maahi mooy kii far bàkkaar di faru kéef. mooy effacé mooy effacé. daana wax naan almaahi mooy sama tur parce que yam hoo bii alkufra. waaw ci la ci la ñuy dindee bàkkaar yi. ci la ñuy dindee bàkkaar hmm. kon gis nga Ramadan mi ngi lay wanaat fooraay bi. kon gis nga ni mu nuroo ak mission alquran ba noppi sax ñenn ñi daal koy delloo ci yàlla ci sifaam ak ismoom ñeel ñi delloo ko ci yonente bi ci sifa sifatu ak ismoom waaye loo ci mën a jëlit xam-xam daal la koy jox mm-hmm. waaye alaaji moo daal lëkkaloo gi alxuraan lëkkaloo ak weeru koor ba tey ni ko yàlla lëkkalee noonu ci alxuraan yonente bi sa cay addisam noonu lay lëkkalee weeru koor ak alxuraan mm-hmm. ndax gis nga addis bi mu ne yowmal xiyaam nee na assiyaamu wal quraanu yasfahaani lil habdi mm-hmm. alxuraan ak weeru koor danañ ànd ñoom ñaari ñëw ci kanamu yàlla ramu jaam bi xam nga ne weeru koor mënoon naa ànd ak julli wala mu ànd ak natt asaka nag wala mu ànd ñoom ñëpp ay ponk leen moom mhm. waaye yénte bi sa lëkkaloo bi xarit ne bi dañuy weeru koor buy jug di ñëw yëmal xiyaam amul benn ponk bu muy ànda bu dul alxuraan alxuraan lay ànda nga ñoom ñaar day mel ñoo doon ay ànda ñoo lëkkaloo nee bu ndikkee ci kanamu yàlla sax gis nga bi yàlla def gis nga bi muy tudd weeru koor rek alxuraan seetlu woo koor la njëkk tudd ci alxuraan wacce nan alquran ci ramadan mhm. Al alquran jitu ramadan way da jitu ramadan weeru koor ci yimi bopam mu mag mi nga ne ko ah, mu ne ci la wacce alquran nga xam da jital jiital weeru koor teg ci alquran mhm. même yonent bi sax siyaaxa bobu hadis bu lëkkale alquran sunna non lay wat au lieu que mu ne wa siyam waaye dani asiyam wal gis nga day jitu mhm. yasfahani lil hamdi neena bi ba ci kanamu yalla sax même bi ni jël kaddu nee na weeru koor yi njëkk a jël kàddu bu noppee jox alxuraan ñu xam ne ba topp ba tey day topp si yaaka boobu mm-hmm. da koy maanaam rajo ji da nga koy xool ci loolu da nga koy xool ci loolu ni mu ko njëkk a indi ni eh, mu ko njëkk a indi ci alxuraan ngir wan ne ñoom ñaar dañuy wanante mm-hmm. waaye ku ci nekk wax mu ne wasiyaamu bu jëlee kàddu ay day wax yàlla ni ko rabbi mm-hmm. jaam bii manaxtuhu at tahaama wa shahawaati bin nahaari fa safihi nii fiihi man mii maa ko tere woon lekk ci bëccëgu weeru koor maa ko taxoon a bàyyi mboolem bànneex buy dog koor ci weeru koor ngir màggal ma ma di la ñaan di la tinu nga mm-hmm. ramul mako waaw mom wéru koor moy wax ak kiko daan taxaw ca kanamu boromam neena bu daane le bala yalla tontu xam nga yàlla mënoon tontu daan waxal sa mm-hmm. wa yalla bala tontu alcorane waxal <laughs> gis nga seen <laughs> lekkelo ak wal wal Quran momit da di jël kaddu yaqulu da ne yalla jaam bi kan manahtuhu annawma bil layli fasafihni fihi maa ko tere woon tax muy foog guddi yi du nelaw ngir di ma taxawee ak di ma jàng ma bëggoon nag fa safi nii fii ràmmul ma ko ci loolu yàlla tontu leen nag fa yasfahaani daal leen ràmmu ñoom ñaar ñëpp ngir lan ñoo daan taxawu weeru koor di taxawu alquran kon seenug lëkkaloo ak seenug lëkkale yàllaa ko def yónente bi def ko waa gis nga njëriñ li mu taxawee alaaj moo da tarkala mbokk yi ba léegi ñu ngi ci émission bi nga xamee ne moom la ñu jagleel koor gi tey jii nekk fii ci 2STV ñu koy def altine ak talaata ci waxtu wi di fi daral tamit sëñ Saliou Samb bi nga xam ne ku yàlla may la ci wàllu fànn booba di ab taalibe itam alors ci loolu kon lëkkale gi moom allah moom moom am na looloo tax borom xam-xam yi ne mhm. mbooleem jaamu yàlla gu ñuy def ci weeru koor yëpp a baax yëpp a tedd mhm. waaye jàng alxuraan ci féete kaw ndax seenug lëkkaloo tiyaaba yi ñuy def ci weeru koor mhm. bi ci féete kaw ëpp ci ak pay mooy kuy jàng alxuraan ci weeru koor ngir ni yàlla lëkkalee alxuraan ak weeru koor d'accord alors ci loolu nit ñi daan daanañu woor awliya yi mu ñu baax seexul xadim daana woor ci mhm. woorin bu jafe nag mhm. parce que am na ci yu fekk ko fi mhm. alors naka la naka la dundee parce que moom ku taxawoon ak alxuraan la lool kon léegi lëkkale gi mën naa amaat foofu ñetti mandax la am day amaat geneen mandax la gis nga moom lëkkaloo gi mu lëkkaloo woon alxuraan ak weeru bëgg bëggoon na weeru koor bëgg goo xam ni ba mosaan a jub mag ñi dañuy waajal seen i aajo di xaar ba weeru koor jot ngir ñu andi ko ngir bu weeru koor jotee maare gi muy nekke ak mbig mi muy ko bu weeru koor jubee soo la wax mu ne dara ndax gan gi ñëw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 indaaleel jàmm ñi waaye weesu naa foofu man xub la am ci yow inni uhibbuka hubba saati saatala bin loolu sin bi daan wax dama laa bëgg yow weer koor di wàqanteeg moom bëgg goo xam ne sa jëmm sa jëmm ji laa bëgg yow même sax xéewal li nga indi yëpp dara ci bëgg gi ma la bëgg nga xam ne foofu la ko tolloon waaye ci biir bëgg gi mun ko dama laa bëggaale ngir li nga nu andil te mu gën a rëy lépp te mooy alxuraanul karim mhm. alxuraan moom nag mu am ci ab taxawaay moom Serigne Touba digg ma alxuraan ñëpp a ko xam ndax nee na na nga xam ne kat sama digg alxuraan jagle gi ma ci am waaye cir bi ma ci am yàlla moo ma ko jagleel mu bokk ci xusuusiyaat yi ndax kat nee na kawniya xaadima rasuli wal wal kitaab faddulun min al wahabi laa min iktisaab mhm. doon gi ma doon xaadima rasul muy xaadimu rasul di liggéeyal yonente bi te yonente bi sàkku ci yàlla ma liggéeyal ko ak doon gi ma doon kii liggéeyal yonente bi ci alquranul karim mhm. muy xaadima rasul ak xaadimal kitaab yi da ngeen xam ne kat loolu faddulun min al wahabi ngëneel la lu ma yàlla mi maye waakoon bi may jagleel ma ko waaye laa miniti saab loolu du du nit baa nga fàgg ko bàgg ca ndax yàlla ngëneel li ñaar la faddulul xusoosiya mhm. ak li ñu tuddee faddulul xamaliya mhm. ngëneel loo xam ne ci jëf lay jaar ngir nga am ko effort mhm. ak ngëneel loo xam ne nag effort maanaam li nga def ak li la yàlla jagleel li la def ak li la yàlla jagleel waaye alaaj moo da moom nag diggam ak alxuraan da ciy am wiraasa mooy ndono gum ci am ci yonent bi salaay muy wiraasatul kaamila nag boo xam ni wiraasatul xususiya la xam nga wiraasa mu ni ni donnoo yonent bi ci alxuraan ñaari xaaj la daa am na ñu tuddee al wiraasatul mutlaxa ma wiraasa goo xam ne ñëpp ci yem képp kuy ab julit gën a rëy daraja ba ci gën a suufa daraja ku ne mën nga caa doon la tolloog sa dañ koo boyal dañ koo boyal ku ne mën nga caa am sab cër donte duñ ko tollale loolu mooy wiraasatul mutlaxa hmm. waaye am nag wiraasa boo xam ne wiraasatul muxayyada la mooy dañ koo tënk hmm. booba kenn ku ci nekk yaa ngi koy doon noo yonente bi kem daraja ji nga am ci yonente bi mhm. mooy ñi nga xam ne ñooy doon yonente bi doon ay ay ay ay awliyaawul doon ay borom jamono ku ci nekk maqaama mi nga doon doonoo yonente bi nam toll ci diggante sa diggante yonente bi nu ni toll noonu nga koy doonoo sa diggante ak alxuraanu karim ndax alxuraan bagage la boo xam ne yàlla yonente bi la ko moomale mhm. yaa ngi dégg ñaar yooyu nag muy wiraasa mutlaxa bi ak wiraasal muxayyada bi ñaar yëpp nag ci alxuraan la génn mhm. aaya bii ci suurtu Faatir borom xam-xam yi ban demee gis suñu borom ne summa awrasna al kitaaba lasina stafayna min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bil xayraati bi isnillah dalika huwa al fadlul kabir résultat bi di jannaatu xaddini yadxuluunaha fiha min nasaawira min sahabim wa luhlu an wa fiha harir alxuraan dani nun yàlla nooy bii ci sunu jaam ñi ñunu soob daane jaam ñoo ñee nag première xaaj bi mooy ñëpp am nañ cib cër daane ña ca féete kaw muy saabixoon bil xayraat ña jiitu caw yiw asidun ñi nga xam ne dañoo digg doomu féete wun kaw waaye suufee wunu it mhm. waaye ba ca ña nekk ca suuf nañ xam ñoo ne ca rumba mooy saalimu li nafsihi ku ci nekk mën nga caa am sa cërub bopp ñoom nag biñ itigee aaya boobu ñoom borom xam-xam ñu ne noonu lu njëkk li feeñ na ci noonu lu mujj li ñu ne leen noonu lu njëkk yi fu mu feeñ mu ne mooy diggante saalimun li nafsihi ak muqtasidun ndax saalimun li nafsihi ak aaya boobu boo demee ci tafsirkat yi تاني ابن حجيبة المديد في تفسير القرآن المجيد دا لاي واخني لا نونالي مطلق لا مخيط نخ مطلق موي سون بران دا واخني الذين استفينا من كجبلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صحابتي من الصحابة ومن التابعين وتابعيهم ومن بعدهم إلى يوم الدين لأن الله استفاهم على سائر الأممي لتخ غير أمة وسطا لتكون شهداء على الناس wa yakuna rasul aleykum sahida mu ne ndono li xeetu yonent yàlla Muhammad bépp ko bokk la ko tàmbalee ca sahaaba ya ak taabihiin ba ci sunu jonnu tey kenn ku ci nekk mën nga caa doon la cay sëb cër mhm. ndax istafaynaa min ibaadinaa la wax ibaadinaa bu ca génn kenn daan la ko waral mooy fa minum saalim li ka ca digg ba wa minum saabiqun bil xayraat boole na ca ñëpp kon ku ca nekk mën nga caa am sëb cër mhm. Abdullah ibn bi mu firi saalimu li nafsihi ak saabiqun bil xayraat ak muqtasidun ni mu ko firi rek moo lay wan ni ñëpp la ndax bi mu ñëree ci san bil dani dañu mooy ñett kaw mooy mm-hmm. al muxlis mm-hmm. ñi nga xam ne moom danoo sellal seen diggante seen borom duñ def dara lu dul na yàlla tax mooy ña mm-hmm. féete kaw yàlla nangul leen ñu ne ko muqtasid nag mu ne mooy ñi nga xam ne moom ak jaahidu nihmati waaye xayrul kaafiri bi waaye nihmati xayrul jaahidi bi mooy ñi nga xam ne dañoo weddi xéewalug yàlla mooy mën nañoo jaamu yàlla sellal nañu lépp waaye duñ sant xéewalug yàlla bu leen yàlla defalee njekk ñu fàtte ko ñoom ci digg ba la ne na bokk na ñu njëkk ña ñoom duñ fàtte njekk daane ña gën a suufe nag mu tuddale almuraawi yi mooy ñi nga xam ni li ñuy def ngir sala tax mhm. mooy dañ caa dugal bokkaale dañ dañ koy def ngir nit waa defuñ ko ngir yàlla boo demee nag fa mu gën a wére mooy arab bi ibnu anas daane mhm. la lay wane ne ne ñëpp dugg nañ fa minum saalimu li nafsihi da ko firee saahibul kabaayiri mhm. mooy borom bàkkaar yu mag yi ñi nga xam ne moom wu benn bàkkaar bu mag asid nag mu ne mooy saahibu saqaayiri nga mm-hmm. ba lahuma mooy ñi a kaw daa ka gën a ka ci bi ka gën a suufi asa bi ci ndonali mm-hmm. waaye ibnu hajj yi ba daa ne loola ke boo ko bëggee dégg rek demal ci alxuraan ñetti groupe yëpp classé na leen wa minhum saabiqun bil mooy groupe bu njëkk waraaw wa saabiquuna al awwaluuna min al muhajirin wal mm-hmm. ansaar wallazina tabahuhum bi ihsaanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa ahadda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abadan dalika fawzul azim moy groupe bu njëkk bi raw di mm-hmm. ñu ne ko bi ki digg bi rek mu ne moy wa hamalan salihan, wa akhara sayi hasallahu ayyatu bi alayhim wa inna laa khafur rahim groupe bu mujj bi nak mu ne mooy suuf suuf moy mm-hmm. wa axaru li amrillah mm-hmm. imma yuhasibuhum wa imma yutubu alayhi wallahu alimun hakim lol di la wan kon nono lu njëkk li mutlakh la ku ci nek man nga ca am sepp cër man nga ca don la sopp yalla seigne touba nak ci alcorane ñaari taxway la am mooy bi mu bokk ak ñëpp en tant que ab jullit mhm. sahidalillahu bi annii muuminu wa muslimun wa muhsinun wa mutminu ci dege rek njullitam la nga xam ni ab cëram la ci alxuraan en tant que dëgg-dëgg muumin muslim dëgg-dëgg muhsin bu yàlla seereel na ko doon nga ko te ci ngay sax mu doon na ci alxuraan lam ca doon loolu du ci ñëw mhm. waaye nag wet gi nga xam ne ci laa bëgg ñëw nag mooy wiraasatul kaamila bi nga xam ne xusana moom boobu xam nga fu ñu ko génne mhm. wa minhum saabiqun bil xayraat mooy ñi nga xam ne ñoo ne ca kaw jiitu mu saabixoona yi saabixoona yi ibnu kasir firi dane wa saabixoona saabixoona ulaayika al muxarrabuuna fi jannaati moo firi waaw xam nga nee na alquran mooy firi alquran mhm. tafsiru quran bil quran mhm. daane ñooñe nag ña ca féete kaw hum al awliyaa al an yonente ya daane baatub saabixu maqaamam saq googu raw jiitu bi la salaa salaam mhm. kenn ku ci nekk dana la caa sidd rek sëb cër la nga ca am moom nga rawee keneen ku dul yow waaye ci daraja yonente bi la ku ne amee ndax moo jiitu ñëpp te kenn dootu ko dab moo tax sëriñ bi di ko wax ni nubuwatuhu xablal baraaya xaddin jarat waaye lëho sabku xiinal mhm. jadd fi tiin yox xam nga lëho xam asabku mooy mooy xam nga lëhoo ñeel na ko asabku mhm. bu ne woon asabku lëhoo dana jub asabku jiitu ga lëhoo ñeel na yénte bi waaye bu nu jiitalee xabar ci mubtada mhm. wax ji de gën a dëgër fi ne xabar ji lañ jiital ci mubtada mi mhm. te arab bu defee noonu mooy moom dong la ñeel waaw mi ngi mel ni fa lillahi alhamdu ak alhamdulillah mhm. xala alhamdu mooy mubtada mi mhm. lillahi def yàlla la ñeel waaye bis boo ne fa lillahi alhamdu ci lay gën a dëgër fa lillahi yàlla dong képp rek alhamdu mooy yeeyoo kent boobu boobu dañuy xabar xabar bi ñu juutal bàyyi ko ci place fi mubtada bi war a nekk ñu yóbbu fa xabar bi ñu yóbbu fa xabar bi pour wax ji gën a dëgër pour wax ji gën a dëgër noonu la sëriñ bi firee baatub saabixu daan ne ak jiitu ak raw mag xamam ne ca kanam moom bokk ko kenn hmm. daan kenn ku ci nekk nag la la ci yónente bi dogal loola ngay rawee ku dul yow ku ci ëpp ëppale yaay raw hmm. loola tax ku ëpp maqaama ci yónente bi yaa ëpp nooy doon noo yónente bi ci alquranul karim hmm. loolu loo tax nag moom wiraasatul kaamila bi mu ci am mooy sumbaram da ko jagle goo xam dani comme may na ko mu doon noo yónente bi ci ñeenti position yi nga xam ni yombul ñeenti position yooyu nga ramassé ko doon ci yónente bi ndax mooy position wéraasatu position xalifatu position sahiran ak batinan lolou yombut ba dee xalifatu dégg nga muni madahu khadim fo wa huwa al xalifatu loo wa huwa rafiq ba dee wiraasatu dégg nga mu ni baqara lii siral hurufi man katab kaw ni ya waarisal fan katab ba don nga ko maay wiraasaam mooy ki don doon doon nga ko maay xalifaam waaye ndax ci sahira ci batin ndax man nga don yonente bi ci sahira te doo ko doon ci batin mën nga koo doon sax ci baatin te doo ko doon ci saahir hmm. waaye nag boole doon na ko ci xalifaam di waarisaam ak saahir ak baatin loolu yombut ñu ne ko ndax saahir ak baatin gi boole nga ko ci mu ne waaw waaw loolu it may na ma ko as saahiru wal baatinu da saahira wa baatina yàlla defal na ma doon fatan doon na ko waarisatan doon na ko baatinan loolu moo ma may ma doon na ko ci alquran nii wiraasatan kaamilatan xus mooy ma doon ko ci noonu lu mat loo xam ne ma ci am ak jagoo ko loolu nag leeral ko mu gën a leer mu ne première bi mooy bi ma toogee ci boobu place yàlla tawféexale na ma jëlaat alquran teg ci loxol yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi mu ko joxoon mu daal di koy indi yeesal ko ci man wan ma ne ma maa toogee jotaay bi maa ko doonnoo foofu loolu mooy awrasanii askiima samadu mhm. waxoo ilaa yeddi muhammadu gis nga awra sa nii doon loona ma mhm. asikral hakim yi mooy téere bu tedd bi mooy alquran ku la ko doon loo assamadu mooy yàlla mooy ki nga xam ne mooy kilifa ga mhm. waaye nu ko defee mu ne waxaadahoo wa man na ko ilaa yëddi tekki sama loxo kan muhammadu kon yonent bi la ko jox mu andil ma ko ngir mooy borom place bi mhm. kon moom moomay investir xam nga ne sax président bu génnee ci am réew ñëwee moo ko jox lenge yi président yi ñëw ñu ni tey la koy jox lenge yi mu doog a dem motax place bobu ku fay tok yonent bi mo lay sta mel ni koy don ci alquran fofu mom mo ñëw andil mako ci digelul yàlla dani amna sax yoon wo xamni yàlla dañ ko àndal jibril mi nga xamni bima la koy jox mom la jaarale won ci dinte bi innahu la qawlu rasulin karim si quwwatin hin mutahin sama amin fa la ca sutu Haba ko wala moo mani malakani al amin wal amin kitaaba baqin ja'ani taminu yonent bi ànd ak jibril ci digelul yàlla andil ma alxuraan ci bi ma ko doon donnoo ci boobu place ma donnoo ko foofu waaye alaaj moo da li ci gën a yéemeeti nee na juróom-ñaari position yi nga xam ni moom la yàlla joxe yonent installation nga ni bi yàlla installé yonent bi ci place jox ko alxuraan mu gindi ci mindee fi mm-hmm. installation bi juróom-ñaari condition moo ko def nee na juróom-ñaari condition yooyu yëpp sax yàlla doon loo na ma ko sama digganteeg yonent bi ci alxuraanul karim mi nga xam ne moo wàccoon ci weeru koor ñu ne ko ah ban la mu ne bi ci jiitu mooy makkaanatu insaalihi fii sax si xil karim sallallahu alayhi wa sallam bi muy wàcc ci yónente bi sallallahu alayhi wa sallam barab bi ko yàlla wàcce ci jëmmi yónente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yeesal na wàcc googi ci même barab boobu ci sama jëmm ñu ne ko ban barab la mu ne da ngeen di dellu alxuraan dani yónente bi maa wàcc ci moom alxuraan waaye wàcce wu ma ko ci cëram cëram cëram yëpp daa am cër bu ma ko installé mhm. ban cër la mu ne wa innahu la tanzilu alamin nasala bihi ruuhul amin ala xalbika mhm. li takkoona min al munsirin bi lisaanin mu mubiin ke mhm. suurtu soxara nun yàlla noo wàcce téere bi ñun ñi borom mbinde fi jox ko jibril mu andi ko yónente bi waaye xalaa xal bi ka ñoo ko wàcce ki sa xol bi yow yónente bi kon yónente bi place bi yàlla wàcce ci mu alxuraan mooy ab xolam mhm. xol la ko nag ki sa làmmin wu leer muy làmminu arab ndax làmminu arab yalla du arabisan yàlla mhm. amul nationalité waaye alxuraan li tax mu nekk làmminu arab yónente bi moo ne arab واتي القران تي لامينو يونتي بي نكوي واخ كي نيت فا واخ لن لون خام وما ارسلنا من رسول الى بلسان قومه نخ لي يبين لهم فيدل الله من يشاء ويهدي من يشاء والله ساكي كون القران ديفني ماغي واتي الخ يونتي بي واخ نكو فلي قل من قل من نصله روح القدس ولا قل من كان عدوا ونسله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يدي وخدنا وبسال المؤمنين سيرن بي نينا lolu sax yonent bi defal na ma tawfiq ma don nako ci mooy wati nan alxuraan ngir ma don nako yonent bi mhm. ñu ne ko lolu loolu nu ko defé muni na nga xamni alquran kat wa kalkali moy sunu bar ahmadu rabbi ya hala mhm. kitabihi lësi hala kulla kitabin nusila waye bi kalkali wabil fami moy sunu borom wati na alquran ci sama xol wabil fami ak ci sama ngir lan ma doon noo ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii këlkëlii ci sama xol bi mhm. waaye gis nga léeg-léeg sax ñu ne ko nag aay bi da caa teg bi lisaanin xarabiyyin mubiin làmmin wi yàllaa ko jox yonent bi ngir mu leeral ci alquran am na fu mu naan ko fa innama yasarnaahu bi lisaanika mhm. li tubassira bihil muttaqiina am na fa innama yasarnaahu bi lisaanika la'allahum yatasakkaruuna moo jeexal ah, suuratu booy dugg jaasiya mhm. kon ci sa làmmin lañ ko jàppandal yow yonent bi nee na lammin woowu sax di lisaanul xarabi lammin woowu yàlla doon na man ko man sëñ Tuubaa ci place boobu ma toogee doon noo yónent bi wiraasatul kaamil ci alquran mhm. ñu ne ko loolu bind ko mu ne loolu moo tax yàlla ni laqananillahu lisaanal xarabi ati am na fu ne fasaara xatti min ahlil xurabi mhm. laqananillahu lisaanal xarabi fasaara xattiya min ahlil xurabi yàlla moo ma sax mhm. lamminu arab wi daane looloo tax mu mujj def sama mbind mu bokk ci jaamu yàlla yi gën a kawe mu ni bi ma ko yàlla sawee it yónente bi mu joxoon làmmin wi da koo digal mu yeesal ko ci man moo tax mu ne nasaxal yii mhm. nuura lisaanil xarabi asmaana xidmati yi an nabiyul xarabi gis nga noccil na ma làmminu arab diir sama liggéey bi ma di ko ci liggéeyal ku def loolu mhm. an nabiyul xarabi xam nga an nabiyu mooy faahil bi mhm. an nabiyul xarabi mi nga xam ne mooy ko jóg arab moo ma joxaat làmminu arab bi bilisaani arabiyyin mubiin ngir ma doonnoo ko ko ci position boobu am na fu mu koy tëggee sax ci naayibul faaxil lu mel ne nusiha lii nooral lisaani wal kitaab nooral lisaani wal kitaab mhm. asmaana xidmati la daa ahlal kitaab nocceef na leer laminu arab ah, sama liggéey bi malaahi ngir dama ko caa donnoo mhm. kon gis nga noonu loolu doon na ko ci position bu njëkk bi mooy alxuraan ni mu wàcc ci yonente bi ci xolam wàcc ko ciw làmminam mhm. yàlla yeesal na wàcc googu ci sëñ tubaa ci xolam wàcce ko yitti ci aw làmminam waaye gis nga xol bi xam fu xal bu la wax waye léeg-léeg alxuraan dana jëfandikoo fu adu ci yene bari na waaw fu bari xam nga deeng fu nan waxalo lo loolu laa nusila haasal qur'aan jumlatan wahida kasaalika linusabbit bi fu adaka waratalna tartilan ma ko wàcce fu adaka ci sa xol léeg-léeg mu ne ko wa kullan naqsu halayka min nan anbaa'i rusuli ma nu bi fu adaka fi hasil haq wa mawhisatun wa sikra lil mu'minin maa ko wàcc ci sa xol fu aadu arab nag saa yu suppee baar rek maanaam soppi ko na mhm. xol borom xam-xam yi dañ koo séddale ñeenti xaaj ci alxuraan yàlla dana wax asaduru mhm. dana wax alxalbu mhm. dana wax alfu aadu dana wax allubbu dana wax alxalbu waaw alxalbu mooy deuxième bi sadduru xalbu fu adu lubbu waaye benn bokk ci sa morom position dañ ne bu nee sadduru ku mel ne imaamu Nawawi borom Riyaadu Saalihiin da lay wax ne bu nee sadduru wax maanaam l'islam position ci place bi tuddu sadru fa la ko yalla def ay étape la ci bir xol motax motax giso fumi waxe l'islam mu concerner nit ci walu xolam sadru la jefandiko afa man saraha allah sadrahu lil islam dënn bi ah den bi fa wa ala nuuri mi rabbi gis nga fa yahdi allah an yahdiyahu yasra sadrahu lil islam waaye wa man yurida an yudillahu yathal sadrahu day harijan kuma naral l'islam may ubbi sa den def ci leeruk l'islam kon buy tudd l'islam sadru lay utiliser bu dee tudd ñu ni iman nag mooy barabu xol al maqamul xal al imaanu makanul xal bu dee nag day wax ci wàllu ngëm nee na fi mu koy position xal bu day weesu sadru rek loolu tax saa yi wax iman xal lay jëfandikoo gis nga xaalatil arab aman na xul lam tuuminoo walakin xuulu aslam naa waaye wala ma yadxulil imaanu fii xuloobikum xam waxul fii sudóorikum fii xuloobikum dafa xol la هو الذي انزل سكينه في قلوب المؤمنين مؤمنين مؤدي ايمان كون بودي واخ قلب ايمان قلب موي بلاصام تي نيت ني ني نك بو فكي فؤاد نك فؤاد ني ني موي موي مقامه المعرفه خم يالا خم خم بندول جانغا خم يالا لاي خمال ميرم برب بي خم يالا تي نيت نينا موي فؤادوم موتا ني تودي كو باتينو الخلب موي باتينو خول ني مير دي امي ساير ام باتين xol bu doon am baatin baatin bi mooy fuaadu fuaadu mooy lay xam mbirum yàlla mhm. ñu ne looloo tax yonent maarifa lay doon mooy maarifa voilà moo tax ñu ne la yonent bi bi mu rañaanee dem ci yàlla ba demee ba weesu fa lusik am mooy fa fa jibril tàqalikoog moom mhm. nga xam ne lusik jeex na léegi mhm. wa ma minna ila lahu maqaamun maalum wa inaa la nahnu saafuun wa inaa la nahnu musabbihun nga xam ne fa la continuer ba suma danaa fa tadallaa fa kaana xaaba xawsay aw adnaa fa awhaa ila abdihi ma gis nga waaw maara ah. ca nañ mi ca nañ mi waaw waxutul maa kasaba sadru mhm. ñaar yooyu duñ fa àgg fu addu waaw ah, parce que parce que yéeg na yéeg na <laughs> moo xolam ba du werante gis gam gis boromam ak mbiri boromam foofu mhm. fu aadu mooy gis yooya ah, ndax mooy yëg la waaw mooy li liy yëg mooy la ñuy tuddee marifatu billahi li koy yëg ci nit mhm. kooku fu aadu la ci nit moo tax xol ay degere la léegi bu waxee ma xamum tawhid ba xam lu gis mën caa xool lu mu yëg mën caa yàlla nga xam ne loolu mooy dëgg dëggi tawhid loolu lubb moo koy def moo tax alxuraan ba mi tagg gaañe dana inna fi xalqi samawati wal ardi waxtilaafi leyli wan nahari la ayatin li uli lal baab lal baab jamhu lubb mu mel ne dana ko ñan la leen allasina yaskuruuna la qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samawati wal ardi rabbana maa xalaqta haasa baatilan subhanaka faqina hasaaba naar luñ gisati dañ naan maa xalaqta haasa baatilan dañ te gis yàlla wallahi ah fii ay sin fo mhm. sëñ bi ne loo xoolati te gisoo te yàlla nga ndax lu ne la ak rëyaayu yàlla waaye loo xool ba jeexal ko yëgoo te yàlla gisoo te yàlla yow moom bay ba nga xam ne murtaan nga mhm. lool nag lubb moo koy def waaye li tax ma defee woon foofu mhm. mooy fu aadu kon dana ko jëfandikoo ci position bi alxuraan wàcc ci yonente bi waaye Serigne Touba nee na makkaama moomu sax yàlla doon loon na ma ko ci yonente bi mooy yeesal lañu wàcc gi man ci sama fu waaw ah, loolu lu yéeme la moo tax ma ne beneen niveau la beneen niveau la loolu nag du la jaaxal ndax dani maa ko doon noo yónente bi da ngay xam ne bagage yi yónente bi la bu mu koy ràng ci maqaama mum ko teg ak daraja jëm ko teg di ko wane loolu loolu daraja yónente bi la yaa ngi dégg ñi xam fa ñëpp du ñu werante loolu ndax lii wàllu tasawuf la mhm. yow da nga ko xam waaye ñi xam tasawuf du ñu werante loolu mooy wiraasatul nabiyu ak wiraasatul kaamilaam ci diggante wiraasatul xalifa gi ak waarisa gi ak saaxir gi baatin waa tasawuf ñëpp xam nañ loolu mhm, mhm. dañoo xaw a dugg ci tasawuf waaw moo tax mu ni walil kitaaba mhm. mutakallimun gësëb di wali fuaadiyan gësëb fuaadu ñëw na walil kitaaba gis nga jox na ma téere bi mutakallimun nag moom ko jox ka waxoon téere bi mooy yàlla xam nga mutakallim ci melo yàlla yi la ma ñëw na waaye wali yëddi wali fuaadiya in gësëb da koo teg ci samay loxo dugal ko ci sama fuaadu kon doon noon ko sax ci position fu aadu boobu nga xam ni ni ko doon na ci position xal boobu deuxième bi mooy deuxième tomb bi ci set état bi dañuy dañ koy euh, kii rek ba fu mu fu mu yem mm-hmm. Mm-hmm. mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yàlla wàccee ci moom alxuraan itam wàcce ko ci position xolam ba nopp daa am leneen lu ca topp mm-hmm. mooy yàlla jàngal yonent bi alxuraan ah, c'est clair waaw ah, c'est clair loolu alxuraan la di loolu alxuraan la dégg nga iqra bismi rabbika rabbika xarax wa rabbukal am na fu mu ne ko fa isaa xaraxnaahu fattab bi qur'anahu mm-hmm. saa yu Al Quran, bu nak répété su njàng mi mm-hmm. ñenn ñi délo la koy défé mm-hmm. su ñëwé ba ci njàng mi ak yàlla moo ko defal bi sëriñ bi néna même bobu position yonente bi don lo na ma ci ci ci alxuraan moy yalla jangal ma alxuraan man comme nim ko jàngale won yonente bi ma don noo ko sallallahu alaihi wasallam. ngir diggam ak alxuraan xam nga ni ci sahir am na ñu ko jàngal da ngay dégg diwa ko dalal mm. bala tagi daana diwa ko yeggale mm. loolu mooy saaxiir mm. waaye lii comme mbirum tasawuf la baatin nee na bi mu demee ci géej gi yàlla sunu borom mi ko yóbbu ci géej gi ngir mu lëggéeyal yonente bi tam doon noo yonente bi ci alxuraan ci position bi yàlla da koo fàtteloo lu ko mindeef mas a jàngal ba mu mel ne mosu caa xam dara mu yeesalal ko boppam jàngum alxuraan jàngalal ko ko boppam ni mu ko jàngale woon yonente bi loolu mooy aqraytanii yaa man jalla yaa man li wajhihil irahil illa xam ya mako jangal ko aqraytani nga xam ta xam nga ni lolou taw mu la yalla lay sante nako ko aqraytani jangal nga ma foko defé muni fil be nga ma jàngale alquran supprimer luma ci mindeef mos xamal ma don noko yonenté bi ngir ya ko jangal alquran lolou moy deuxième bi kon kon yalla mo jangal yonenté bi alquran yeesal na jàng hmm. waye troisième position bi mo yalla bimu mu yonenté bi alquran ba nag da koo leeral xam nga jang ak leeral la li la jangal hmm. ndax gi lanen la moo tax nga dégg alxuraan ne ko inna alaynaa jam'ahu wa qur'aana fa isaa qara'naahu fattabi' qur'aana waaye su ma inna alaynaa bayaanahu nun yàlla warlu dajaleel la alxuraan yow yonent bi noo la warlu jàngal la ko waaye ñoo la warlu leeral la ko nag expliqué la ko ba leeral gi leer dégg nga arrahmaanu allama alxuraan xalaqa al insaan lu mu ci nekk allamahul bayaan gis nga bayan bi ñoo koy xamal noo koy leeralal mhm. ba mbir mi leer ko nañ ñi moom bi mhm. ndax bayan benen mbir la ci bokkut ak jang gi bokkut ak xam gi ak leral ak leeral gisoo fele ci eh, lanham xam boole na digeunte jang xam leral ñet yu bokkul la wakasaalika nusariful ayati ayaati yaqulu darasta mhm. lolu moy jang wala nubayyinnahu moy leral li qawmin ya'lamuuna moy xam ci ñi xam kon xam leral waaye deuxième ñi ci ñi ci leral gi leral gogo yàlla moone mako defal yonte bi leral nak motax borom xam-xam la bayan ñetti xaaj la ci alquran bayanul haqq wa bayanu khairil khalq wa bayaanul xalqi bayaanul xaq mooy leeralug yàlla leeralug yàlla nak séq ko kenn ku dul yonte bi moom dong lay leral kase kase mu wacce deuxième bi ñëw nag mooy bayaanug leeralug yonte bi nak leralu yonte bi ñun la ko yalla ay leral yonte bi mo leeral nu leeralug yàlla mooy su ma ina xalee naa bayaanahoo waaw leeralu xayrul xalqi wa anzalna ilayka zikra li tubayinna linnaasi maa nusila ilayhim yow laa koy leeral waaye ma wàccee ci yow li ma wàcce ci ñoom leen ko gis nga li tubayinna voilà linnaasi maa nusila ilayhim nit ñi alxuraan ji li jëm ci ñoom nga leeral leen ko yow yaa leen koy leeral waaye yow man maa lay leeral maa la koy leeral nga leeral leen ko kon loolu mooy deuxième leeral gi mooy troisième leeral gi ne mooy sunu leeralante sunu biir ñun nit ñi loolu ñun ñoo ko seq xam nga boobu mooy ban moy in jaakum faasiqun bi nabayin fa fatabayyanu fatabayyanu e information yu dox seeni diggante ok ni bayan ci ñetti xaaj yooyu bayanu xaq in jaakum faasiqun bi nabat bi ngeen leer information bu ñëw fatabayyanu fatabayyanu lu may antusi boo xaw bi jaxaalatin fa bi ko xalaa ma faaltum naadimin naadimin koy def loo dégg rek leerlu woo daal jël position wax nga def léegi nga def looy rëccu baa nga wax c'est clair ya kon nag in jaakum faasiqun bi naba fatabayyanu fatabayyanu fatabayyanu <laughs> nag mooy mooy bayaanul xalqi mooy leeralug mbindeef ci seen biir ok waaw ah, yaa ngi dégg léegi aan leeral gu gi yàlla yonent bi rek la ko siqal leeral ko ko mu leeral na ko mhm. waaye leeral gu njëkk googi ci doon gi Sëñ Tuubaa doon yonent bi ci position bii nga xam ne kenn mosu cee doon ndax wiraasatul kaamila la te xusuusiya la mhm. ndax la fadlul minal wahaabi laa minal kisaab mhm. ni lii def yàllaa ma ko defal ndax du lu nee na yàlla doon loo na ma leeralal ma boppam alxuraan ni mu ko leeralee yonent bi ma doonnoo ko yonent bi ndax loolu ci bagage yi ma doonnoo yonent bi la man Serigne Touba ñu ne ko loolu nu mu demee mu ne maddali yàlla bayaana bil mahaani sul mahnawiyati wa sul mahaani foofu bayaan la tudd maddali yàlla bayaana baatu in suma ina xale naa bayaana hoo xalamahul bari ji ne maddali même même doppi ko ma fu mu rek ma fulul bi ci makkaan moom makkaan bi xam nga luy faahil ji sul mahnawi suu ci lisimu juróom la bokk waaw te lisimu juróom waaw lay rafaaye mhm. yaa lay nasabe yaa lay kasra mhm. moo tax bi ne maddale yal bayaana taal jox na ma leeral ga mhm. bil mahaanii ca mahnaaya ba dara lëntatuma ca nga soxal mu ni sul mahnawiyati suu boroom al mahnawiya al mahnawiya ak mahaanii ci melay sun borom yi la ci taw yu kawe suu gi rek mooy faahil ji <laughs> yaa ngi dégg lisimu juróom la sul mahnawiyati moomu wa mahani nga xam ne sul mahanawiya mooy sul mahani mooy ki ma defalal bayaan bi sukran lak <laughs> barakallahu <laughs> jiddan waadix jiddan eh, mbokk yi ba léegi ñu ngi fii ci 2STV ci weeru mhm. koor gi di waxtaane alquran di waxtaane ñi nga xam ne ñoo ak moom mhm. eh, di tey tamit lëngoo ak moom itam mhm. mais lan moo taxoon mu nekkoon ci diggante boo xam ne sama lépp moom la moom laa taqalool mooy sama xarit daa iman moom daal daa iman kaana fi fi fi ah, jaanibihi ah. alquran nee na loolu ko gën a def dara nii mm-hmm. nee na sama lëkkaloo alxuraan mu doon sama xaar doon sama lépp mm-hmm. ni ngeen yëg ne ma booleeg moom ni yàlla mm-hmm. boole weeru koor ak alxuraan ba ñu lëkkaloo te duñ tàqalikoo sëriñ Tuubaa yi na man yàllaa ma booleeg alxuraan te sax ci sàkku téefuk alxuraan la raamal kitaabu kaw nahoo mahi bilaa tafaaruqin wahumuri xaq bilaa raama sàkku na alkitaab ko faahil téere bi moo sàkku kaw nii mahi Mhm. man doon ab àndaaleem bilaa tafaaruqin te ñàkk taqali ko ba faw mu yàlla nangul ko ko moo tax may gi ma yàlla may ma taqoo moom te duñ taqali ko rek waxumu di taqa balaa moo ma jural sama dund ndax dund gu taqoo alxuraan xam nga yàlla da koy nangu day sell sax day waa bib lii mu wax ne yan lii xam ne la bi yadlu ba xeer la xami mm. jox ma ko joxit ba àjjana duñ taqalikoo aata min la dunhu ilal jinaan radiitu xan hu jox na ma ko moom téere bi ma may lëkkoog moom di ko doonu ba àjjana ba napp sama borom mi ci la gërëm gërëmee waaye alaaj moo da nee na loo noonu ma mel ak moom moo tax bi ma ko doonoo ci bayaan bi doon naa ko sax ci taxlim bi mooy yàlla moo xamal yónent bi alxuraan mm-hmm. yaa wax nga ko léegi arrahmaan allamal alxuraan allamal alxuraan merci mm-hmm. gis nga allamal alxuraan sax boo gisee ruuxul bayaan bi mu koy firi mm-hmm. dani allamal alxuraan nabiyihi muhammadan sallallahu alayhi wa sallam <laughs> xamal na alxuraan yónentam bi c'est clair daan ne keneen ku dul yónent bi yónent bi moo lay xamal moo tax منك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلو عليهم آياته ويسكين ويعلمهم الكتاب والحكمة كان هم جوج نيون لا تسورة الجمعة تسورة الجمعة نيوم نيوم نيوم نيوم نيوم نيوم جلني يو يا لين دي خمال تيري بي يو نعم مم من صبر ما لا خوي خمال ولا ولا فضل لا يهلك ورحمته ولا همت طائفة يدل وما يدل فسهم كنا نكوي ديزورينتي waaw nañ ko wër nañ ko lëndëmal ma ngoo bu woon bu woon yërmande yàlla loolu la ko tegloo yoon wi waaw maa la ko wax alxuraan la de moo tax mu ne ko wa ansalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa allamaka maa lam takun taxlamu xamal la loo xamuloon fadlu lay alayka hasiman booba yërmande yàlla ñu nag bu woon loolu mu caaf xam kon caaf xam kon yërmande yàlla nee na ko bu du woon a yërmande yàlla sax wa in kaadoo la yastafisuunaka min al-ardi la yuxrijuuka minhaa wa isan laa yalbasuunaka xalfa illa xalilan mu jeex xaw tuut ñu rocc leen li ma defoon ci yow bu du woon a yërmande yàlla waaye maa ko sécurité ba kenn du ko mën a rocc waaw waaye kon maa la ko xamal yaa koy xamal gaañi sëñ Tuubaa ne nag yàlla defal na ma tawféexi doon gi ma doon yónent bi ci boobu place mooy yàlla yeesal na xamalal ma boppam alxuraan ni mu ko xamale yónent bi ma doon noo ko yónent bi loolu mooy haddaytanii bi sikkiri wal hadiisi waaye xallamtanii ak taawila wal hadisi waaw surtout taawil bi sax ah, wa maa yaxlamu taawilahu <laughs> illa huwa illallah illallah illallah yaani illa huwa waaye waaye ku yàlla bëgg nga xam ko di nga ko xam moo tax mu ne yàlla mi nga xam taawil bi moom ko xamala secret yi ak mbóot ko yonente bi taawil bi xam dul yàlla xamoo ko ku dul yàlla xamoo ko taawil illallah rek wa maa yaxlamu taawiluhu illallah kese kese yàlla rek xam dëgg dëgg taawilu alquran mhm. ku dul yàlla xamoo ko yàlla mooma nag moo ko xamal yonente bi sallallahu wa sallam ma doon na yonent bi saaxi naan baat neen yàlla yeesal xam-xam booba ci man loolu hmm. wax loolu mooy te ni bi sikkiri wala xaddi si hmm. xalamte ni taawila daan xalamte ni taawila wa taxdisi hmm. loolu kon mooy leer moo tax mu ne li ye yubiinullaahu maa lam yoxlamu fil quraani siwaahu jaali sulamu moo tax leeral na ma ci alquran ay max naa yoo xam ni ku dul moom yàlla ump na nga xam ko loolu na yàlla moom ko xamal ndax loola moom rek moo ko mën a xam moo tax mu defal ma ko xam-xam boobu nag jàngu ma ko de yërmande yàlla يقود للحلم بلا تحلم وسان جثتي عن التألم يلا ما ومتال xam-xam ba bila taxallum ci lu dul ma koy xam lu fenn lu ko ko jàppandalal rek moo ma ko jàppandalal tabarkal comme ni ko xam na xam naa ne li ma dese bareetul ñaari minute daanaka moo ma dese te waxtaan wi am na solo trop xam naa dañuy lay delloo kàddu gi nga defaat benn xel yóbbaale lépp wallahi waaw moom daal mooy li ñuy waxtaane muy lëkkaloog alquran ak weeru koor waaye ak ñi yàgg dund weeru koor ak alxuraan saa yu weer ñëwee ñu tànn ci ku tedd gi Seexul Xadim ni mu doon rawatina di ko dundee ci biir weeru koor te loola la ko waral dëgg-dëgg ba mu am ci jagle gi mu ci am mooy doon gi mu doon yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moom la weeru koor wàccoon ci moom mu andi ko ci xeet wi waaye doon gi ko doon it ci alxuraan mi wàccoon ci moom moo tax mu am tamit taxaw gum ci taxawoon itam ah, taxawaay bi sax sonnoon nag amu ci morom gis nga alxuraan mhm. nu ne la ko sëñ Tuubaa def ci bind ko ak wo fonk ko ak màggal ko. ak wagar ko ak wagar ko. wagar ko koy mënta weesu moom rek moo tabax këru ay millions boo xam ne kër gi dana nit du ci dëkk kenn du ci fanaan kenn du ci yenn këru alxuraan la loolu dippi njaareem la ko commencé daaree kaamil. sànni ko fa rek te fa alxuraan ji rek. ba noppi tànn ay nit ñu tolloo ko 28 person ñaar fukki nit ak juróom-ñett yoo xam ni 28 yooyu numéro 1 bi boppam la dañuy may may may 1. Sëñ Mor Moussa taawam mu mu noté ko. Sëñ Fallou ma ca topp ndax ñooy mag ña mu nota leen ñu bokk ci boobu mottali ko ca mag ña ko gën a jege ba muy 28 personnes mu leen yéen xëyloo gontuloo mu leen ci leen liggéeyloo mu leen ci dul bi jàng ko ak bind ko seen lépp nag man la war seenug dund seeni kër ak seenu njaboot ba noppi ñooña mu def leen ñu doon ñu gën a xejj ci moom comme ni yàlla ne woon ahlullahi ahlul qur'ani gis nga si mud Lamin Jóob Dagana ma bokkoon ca ñoom nee na waa alquran képp la Sëñ Tuubaa mayoon bit bu sedd nañ ko gis moom ko jafe woon la mhm. ñoom amul benn suur buñ mës a gis sëñ Tuubaa saa yu jullee fajar ci jàkka ji ba noppi day jaar ci daari kaamil ba léeg-léeg fa lay jàngee jukkeem ndax day jël jukki ndax daa boole boppam ci vingt-huit yi léeg-léeg it mu siyaarante ak ñoom jàngee jukkeem ca biir waaye ñooñee seen lépp mu war la ko bi si nab sa xarit ba sa soppe bu baax ba ku baax yaa ngi dégg mm-hmm. daal di tollanti loolu ci daari kaamilu Tuubaa mooy daari kaamil Tuubaa dafa fàttali démb dafa fàttali démb <laughs> loolu ba fi ne yaatu na sax ci yoonu murid daara mu te fu daanaka ña yeewu woon ñëpp dañ daan bind kaamil rek ngi fas ko yéene andi ndax boo xasee ba andi ci moom sag dund dootul jeex benn xista rek laa lay woomal ma jox la ci benn xista ba la ñoo tëj sëñ Ndiass Cissé sama maam mhm. ndax moo jur sin Mor Mbaye Cissé mhm. fi ñu yim am ci sin tubaab yëpp kaamil la ko andil moom dalaan def kaamil la doon dundee avant muy xamanteeg sin bi mhm. day bind kaamil diggante bi mu ko bindee bu jeexee da koy jaay ci ñetti dërëmi ngurdu ca booba jamono ñetti dërëmi ngurdu ñetti dërëm yi danoo ko mën a dundalaat am at waaye diggante at moom mu fi bindaat kaamil baneen balaa kaamil bi àggaat fekk na ñett dërëm yaa ngi koy yoraale <laughs> yaa ngi dégg bu kaay bi àggaatee bu jaayaat ko wecc ko ko amaat ñett dërëm bi si feeñ njaareem di def li muy def ci alxuraan taxaw taxawaay bii mhm. mu bindu kaamil ñoo fekk ko fa ba mu ñëwee ba sin bi ko ci gàttal mhm. ba xam ne mokkal na ak la ci xew lépp mhm. soo musaane bindu kaamil ba noppi ci ko mu ne ko ñetti dërëmi ngurdu mu ne ko sama sama kok yi moy sama fa nga dëkk yow sin jassi ñu lay jamm jamm la mu ne ko fofu sin Masamba job Sam mo fa gëna a ci ci sa ambassadeur ya sin mhm. bi jël aw kayit ci Masamba job Sam sama gan gi teralal mako ko daal di jël kaamil ba mu bo la ko kayit wa jox mu demat njàmbur dem ci sin Masamba job Sam jox leetar ba bam ko sin Masamba job Sam tey ko fa ñett fat ak ngam yo xam bi biset da koy bernde <laughs> waaye ba muy mu ne ko luñu luñu ci daan jox mu ne ko ñetti dërëmi ngurdu mu jox ko ñetti dërëmi ngurdu allahu akbar ba noppi daal di téye askay sa ko sin bi bindalon ne ko jëlaatal sab kaamil man kayit si doy ma ba mu ñëwaatee ci Sëñ Tuubaa ne ko li ma ci gën a yéem mooy delloo gi ma delloo kaamil bi kayit sa mu ko dama laa bëggoon a wan rek moom loo gi moom loo keroog la ne ko alquraanu wal hadiisu <laughs> wa manaafi haddaari lii sëñ Jaasi Siise waaye léegi nag loolu taxawaay boobu Sëñ Tuubaa am ci kaamil ak alquraan mo waral yalla fayé ko ci lim ko ci fayé tabarakallah gis nga ndaw yi Serigne Touba yi man alcorane taxway bin ci am ci lu wer ak niñ ci taxawé lo lepp nak mhm. day wone ni alcorane mo fonko jamono ju ne jaadu na ak seeti nañ ci wéram tabarakallah ci anniversaire ci anniversaire mi xam ci lako yalla yàlla ci lako yalla yàlla wàccee jërëjëf kon bok jërëjëf maa ngi lay ah, sant bu baax sëñ ah, Sall xanaa ma jottali la nuyo mhm. sa soppé bu baax alaaji Mortala Pen waaw waaw ndaysan ah, di wayjuru sunu sunu wayjuru baax Soxna Adja Saliou mu mu soxna ah, ah, yi ah, kan mhm. eh, da da lay da laa sopp lool di topp jotaay maa ngi ko nuyu baax siyaareel ma ko baax a baax maa ngi profité sax di siyaare waale sunu sang bu tedd ba soxna yi de Saliou nuyul ma ko baax soxna yi maa ngi ñaan yàlla na fi yàgg te wér waaw dafa ñu koy siyaar baax ci koor gi wallaay wallaay ñaanal gudd fan ak wér taxawaay moom musta dañ waaye daa yokku wallaay dafa yàlla dellu wér te gën koo sàmm wallaay ndeysaan soxna Fatmata fële ca ñaari tali ak njaboot ga ak ñoom Sultaan Fall lu ci rek ak koy bi lu ci ñun ñëpp ñu ngi jégalu voilà mbokk kon ëllëg la ñu ñëwaat fii ci talaata ji bés bu nekk ci koor gi daañu toog fii waxtaane alquran waxtaane yi tamit li nga xamee ne moom la ko muy anniversaire am ni ko sëñ sëñ Saliou ñu ngi lay sant bu baax a baax ci wàllu lislaam xam nañ itamit al karim yal yàlla doon la yiw ñu ngi sant képp ku mën a doon koo xam ne ki sa soppe la di nuyu soxna Ayda bu baax a baax mbokk yi kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتنا